une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش su ngeen sàmmee ta muy tuy wor da ngeen jàmmal réew mi ndaa xam jaf leen ñi naw ndaa xam dox leen jëm kaw nañuy man lii lan ñu foogee lii lan baaxoo iskay nañuy woo doomi mi laaj ñu bennoo tey déggoo bàyyi dangoo baaxul day digal gaal gi Sénégal ay gaynde koy tabax yu daggu ay pas-pas yu sell ci bokku xallaleen yoon wi ngir dee yow mi am xel jàngil quraan sakkul xam-xam mbooya fuuse yawmi amqal déglu ma jàngil Qur'aan war na la kul xam-xam joomula boo yaa fuuse bon lenga doon ndaw yàlla soxla la seytaane tam toppula dundu gi tam saakula boo jàngul man xawmala yàlla buur nee na la qur'aanam ji aar na la nem ngay jaafe raati ci ñoom shaytaan doom sama dunya gi taaruna tagi raw fi apuna dundu gi tey ji yem na ma maylat naxli jaaduna am amu dunya jay ba ko toog rek naan ma naa la du naax na la nga xëy rek faatu nga am am dunya jay na la ba ko rek naan ma كن لا naan mana ku ne la dujeex nga xëy rek ñu faatu nga nga xëy rek faatu nga بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم man nag li ma leen ko waxee xam naa xëy na da day lu ñu dénk ñu lott ci lool ndax bari kerse ga ñàkk ñeme mbooloo kon sëñ Babacar bismillah bu ko defee xëy na sëñ Ousmane Dieng damay faral di toog jàpp ne journaliste la waaye <laughs> kon xam naa mbooloo mii ñi ci ëpp mën naa yaa leen fi woo te aw nit mag boo leen wooyee bañ ñëw danga leen létt mbaa nga firi leen ñi ëpp ci ñoom nag léttu nañ waaye nag da nga leen war firi ñu yóbbaale mooy nga ubbi seen bopp leeralal mbooloo mi lan moo tax a jug ginnaaw nuyoo woon nga ba noppi xam naa nag yu ci bëree danga koy dénkaane rek ci diggante bu gàtt rek waaw kay noonu baax na. di siyaar baax sëñ sëñ Rafah TV di ko xam ne kóllëre bi sëñ daara yàgg na yaakaar naa sëñ daara yu bëree bëri miin ko ci mu ne ni jaarale seen seen ay message kon tey ci waa ci fii ci daara bustaanul arafin ci njiitu sëñ Abdou Khadir Mbaye ñu woo mbooloo mi tey euh, ci kuréel bi ñuy wax leeral sëñ Babacar yaa jiite leeral baatu leeral lan mooy leeral. baatu leeral moo tax tur yi ni mu bëree nga jël kuréel yi tuddee ko leeral. waaw kay jërëjëf ci Abdoul Fattah Diop euh, journaliste i rajo macha allah euh, waaw ginnaaw loolu xam naa comme niñ ko wax xewoon ci commencement bi. leeral kuréel la goo xam ne leeral kuréel la goo xam ne biñ koy taxawal dañoo daan dem ci ay daara daan fa def li nga xam ne moom mooy ay répétition biñ daan dem ci daara di fa def ay répétition ci lañu mujj daan ay xale demande ñu wax ñu ne dañoo bëgg a di dajaloo di def répétition comme ni ko yeneen troupe yi di defee jamono boobu nag ñun bi ñu nekk Dakar dañ daan dañ daan dañ daan dem ci ay troupe daan bokkoon ci troupe lu mel ne jottali lu mel ne ay troupe salsabil ñu nekkoon ca xale yi nag daan ko suivre ñu ñëwul ne dañoo bëgg def comme troupe boobu wax nañu ko nag lu yàgg bi ñu ko waxee ñuy xalaat tur ndax tur tur bi turu arab lañ njëkkoon a doon nuurul huda lañ ko tuddee woon turu arab waaye comme ñun dañuy def suñuy woy lépp ñu koy jaarale ci ci langue wolof moo tax ñu far ne nuur moom mooy ak leer ñu def ne leeral léegi nag ñu tuddee ko ne fu ñu jaar day leer dana leer ci kanam incha allah bu xale yi taxawee leeral boobu nag moom lañ mujj ginnaaw biñ ko biñ ko taxawalee nag ba mu samp ba commencé taxaw ak léegi ma tëggul sax at biñ ko taxawalee it ñu waxtaan ci ak ay ay kilifa ku ci mel ne suñu jili mbay nga xam ne moo ñu jox béréb bii pour ñu fiy répété chaque alxames fi ñëw di fi répété biñ ko ko waxee tegu sa baat da koo rafetlu lool ñu xam ne nag initiative bu rafet la ndax bu fekkee da ngaa wax da ngaa def da ngaa créer dara wax ko mag moo xam ne ku ñu xam la ci lu baax mu ne la mu encouragé la si ba noppi bàyyi la nga dem jàppale la ñu jàpp ne loolu lu baax la. 18 personnes lañ toll ci ay jigéen bu dee mbokki góor yi ñoo ngi am juróomi xale yoo xam ne dañ leen jële jëlee si daara benn daara maa ngi koy nuyu en passage muy Serigne si Cissé nga xam ne ci ñu dara jaaree bis bi ci la bokk. xam ne ñoom ñoo ñu jox ay xale dañ fa daan dem daan ko répété moom it muy ku bëgg yi yittee ba mu yitteel ko mu jox ñu ay xale pire ñu koy ñu koy répété bu nga xam ne góor ñi ñu ngi toll si quatre personnes bu bu fekk see cinq personnes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ñoom ñoo jógee ci daaray Serigne Xaasim Cissé muy nekk neuf personnes yaakaar naa ne suma juumut ak dix huit personnes ci ay jigéen. macha allah jërëjëf sëñ Babacar loolu leer na. ku la yàpp loolu nag moo la feesloo man moom boo ma xasee jël engagé ma lu ma neex laaj wax. dëgg la léegi leeral moom leer na waa may laaj ba xam ndax kuréel gi ñu mën a way rek lay jël wala am na ay nit ñoo xam ne dañ ciy bëgg a bokk ngir solo si nga xam ne am na carte bu dee lu ñu ndax am na loolu bu dee xëy na ñekkul ay bokk yoo xam ne ñu ngi dégg mënuñoo way waaye ne li ngeen di def neex leen bañ bëgg cee bokk ndax ñooñu ubbi nañu bun pour ñu bokk ci waaw leeral jamono ji ñuy waxee yow dañoo baaree woon ci jël ci wàllu way yi ndax li ëpp solo waa ay way la jamono jii ñu waxee yow rek am na ay fikra yeneen yoo xam ne dikkalaat nañu nga xam ne ginnaaw. fikra mooy lan ci wolof. mooy xalaat. Hmm. yeneen i xalaat yoo xam ne di dikkalaat nañu ginnaaw bi nga xam ne liggéey bi mi ngi avancé ci côté boobu. lu mel ne euh, comme dañ ne culture. lu demee ne que lu demee ne que euh, wàllu ay sketch yoo xam ne day jëm ci wàllu diine. wàllu di traduire ay ay téere yoo xam ne ay téere ay adab la. loolu moom incha allah ñu ngi ciy def sunu kéemtalaay kattan di ko jéem. leeral nag dina jël dina jël ay mag ndax am na ay mag yu si bokk ku ci mel ne su ma ci tuddee ku ci mel ne suñu daara Omar ne moom mooy suñu président moom day day day day sëkk ci ñu ne am na ay mag yu si bokk xam suñu daara Omar Kane moom ñëwul nekk ci xale yi di way waaye am na leneen lu mu si jàppee su ma ci tuddee ku mel ne suñu jiidi mën naa wax ne mi ngi si biir leeral ndax lu leeral dugal loxoom ma nga ca ay ñoom si Ousmane Dem ñoom ñëpp ñu ngi ci biir leeral yow moom sax ci leeral nga bokk ndax indi nga ñu fi sa rajo invité ñu mm-hmm. kon mbir mi moom eh, côté bu ne dafa am ku fa nekk di bay di bay rek su ko defee mu daal di jeg waaye ñun ñi xam ne ñoo nekk di dajaloo noonu xam ne ñooy dajaloo woote bis yi ñun ñuy way moom ci lim boobu lañu ñu toll comme lim bi ma waxoon léegi su ko defee nag ay way lañuy def waaye it teewul way yooyu dañuy sàmmoon teeg maanaam du n'importe qui la ñu jël mhm. leeral moom ñiy demandé ñi ñu récité ñoo ëpp ñu fi nekk ñu ngeen di jël ci waaw maanaam ñi bëggoon a bokk ñiñ dàq mhm. ñiñ dàq si ñu bëggoon a bokk ñoo ëpp ñu fi des am na ñu ñëwoon ba agsi sax dawaat ndax liggéey bi moom da nekkul liggéey boo xam ne dañ koy gafee ndax dañuy dagg dañuy daggal seen yitte yëpp waaw mm. ah, moo tax am na ñu ñëw ba ak si biir dawaat macha allah loolu kenn xamul lim bu mu toll am na ñoo xam ne it bokk bëgg nañoo bokk ñëw la nga xam ne surut ya nga xam ne moom la leeral di jëlee nit nekkul si ñoom ñu maanaam maanaam charte yi mm. maanaam charte yi nga xam ne moom la leeral di jëlee nit am naa si Moustapha Dia pare mu jàppale ma ci wolof yi ndax wolof yi dama see bëri <laughs> waaw dama yitteel xam nga sama classe yi moom daanaka xamuñ waaw waaw dañuy delluwaat fu ñu jógee woon rek ah. dégg naa moo mooy mooy mooy njiit li mooy président sëñ yaa jiite mbooroon man lañ jiitale goon rek jiit jafe lool soxna si wax na ko ci biir kàddoom sëriñ bi mel na ne ko ko xaw a cof waaye damaa bëgg nga dikkal ma ci biir xam nga aw góor ko jigéen moom fu ñu leen tudd ci dajaloo rek léeg-léeg seytaane dana xaw a xe maanaam mel luy liggéey ci xele nit ñi waaye lii soxna si leeral mëntu woon a ñàkk du du lu nu kompaloo moom ngir mu leeral man sax xaw ma wone ne yëf yi nii la demee waaye euh, comme ni ñuy doxee ci jotaay dañ koy doxalee du ñàkk ñii nga xam ne dañoo seetaan si léeg-léeg danañ am ay yëg-yëg yoo xam ne dañ ko am ci mbooloo mi buñ ko jàllee day gën a ëpp solo ci nit ñi dégg mbooloo mi sëñ bi wax na ko sëñ Babacar nit ñi tànnee xale yi dañ leen dañ koy tànn maanaam du xale boo xam ne day dégg ne ña ngay dajaloo rek mu jàpp ne moom moyen la chance la pour mu ngoon jotee mu wut wenn trois heures wenn quatre heures di ko ba mu tooy xëpp ay tuñam dem ca mbooloo mi dem ak a dikk wala da ngeen tànn xale yoo xam ne dañu am xel ba pare am du ñuy bañ ndax soxna si wax na ko ci biir wax ni mooy xale bi ñu tàmbalee jaxasoo ñoom ba léegi yëg nañ seen jikko mi ngi sensé seenam njàngin mi ngi gën a tegu ci yoon loolu mën nga ji gën a xuusal dëgg ci leeral ci mbooloo bi nan lay doxee ci côté boobu. Ah. macha allah ni nga rafetlu kàddu gi bu baax baax alhamdulilah waaw turub leeral ni muy doxee dafa am ay charte maanaam ay ay conditions yoo xamante dañ koy teg ñu ne képp koo xamante ni da ngaa bokk ci turub leeral nii ngay doxee. Mhm. conditions yi daf ci bokk bi ñu war a tàmbali xam nga am mbooloo fu mu dajee surtout mbooloom jigéen. Mhm. ku ci nekk da ngay bëgg wane sa bopp. ci ak colin ah. ci ak colin. Mhm. conditions yi njëkk a teg boo leen xoolee ay t-shirt la ñuy sol. ay t lañuy sol mu am mu am logo troupe bi nga xamante ni foofu doo fi xàmmee ki am ak ki ñàkk ñëppay bokk yam léegi nag loolu li ñu ciy jublu mooy ak woyof ndax doomu aadama yëpp bokkuñu yem yàlla suñu borom ni ñu jaglee mbir yi bokkuñ ñii di ñu am ñi ñàkk te ñun kon ko ñum dañoo ñëw pour pour pour jàngale. defe naa ne mbooloo mi ñu dajale li li jiitu mooy ñu fexe ba ñoom ñëpp ñu mën a yem bokk na ci condition yi nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy tànnee. muy li nga xamante ni moom la lislaam daganal lépp loo xamante ni lislaam daf koy tere dañ koy tere lépp loo xamante ni lislaam daf koy tere dañ koy tere moo xam léttu mèche moo xam faat waxtu julli ndax defe naa ne waxtu julli jote ñoom seen jëm bopp dañuy julli ñëpp dañuy julli yooyu yëpp nag charte yoo xamante ni dafa diis ci koo xamante ni buggoo am na ñoo xamante ni mën nañoo dugg si rek ngir way yi yi fekk way yi moo ci gën a tuuti way yi moo gën a tuuti fuuf li nga xamante ni maanaam moo moo moo moo nekk ci ci ci ci bi. bu ko defee nag bu mu duggee ba gis ne yii nii xaw naa saf ak ak pression bi. dañuy dañuy dañuy demaat. macha allah waaye li soxna si waxee léegi moom lay moom lay dëggal ndax defe naa ne mbooloom jigéen surtout jigéen mooy li ma wax léegi bu fekkante ne yor ay jigéen nga nekk ak ñoom ba mu xaw a guddi fii ay yaay fi dekk xolu yaay ni mu woyofee. Mm-hmm. li la war mooy ñu wommat leen yóbbuwaat leen ba fañ leen jëlee woon ñu xam ne seeni doom ci lii ak lii lañ nekkoon. Hmm. moo ko waral fuñ guddee ak ñoom heure bii lañu la ñuy pare répétition mais heure boo xamante ne jéeg jéggi nañ heure bi ñu waroon a pare. comme li ci mel ne waa Daaru Tanzil dañoo amoon comme benn troupe la comme ñun ñii rek amoon nañ benn fet bi ñu leen def mbal ñu ànd woon fa ak ñoom bi ñu paree dañ leen jëlee ñoom ñëpp ku ci nekk dañ lay jëlee foofu noonu ñu yóbbu la ba ci sa kër ñu déplacé waat ñoom ñëpp ku ci nekk ñu yóbbu la ba ci sa kër nga xam ne ci lii nga nekkoon ñuy door a ñibbi. macha allah jaajëf loolu am na solo yaakaar naa kon yaay danañ ko gën a bàyyi xel euh, damay faral di wax ne yàqkat yi lu leen jaral rek ñu ñiy defar wala yéen ñiy defar wala leen jaral lu ko raw foog naa am na jataay wala lu yàgg lu ñuy wax seen petit gàlle diir bu yàgg lay diire ca xale yi ñoo ñoo ñay def loolu ñooy ànd ak ñoom ci hôtel la ñuy nekk ay fani fan ci caaxaan lañu nekk kon ñoom ñi nekk ci lu lu baax lu am njariñ foog naa yenn bis yiñ ci xaw yenn yendoog ñoom danañ leen ko mu muñal te itam li ñu wax comme gis nañ lu dal seen xel ñoo ngi ñaan yàlla xel mu dal moom yi mu gën a continuer ñuy dalal sëñ daara sëñ alhaaji sëñ moom it bis ñi tey mu amoon bi bis bu mel nii sañ Babacar ñëw taxawaay taxawaay bu rafet macha allah kon dañu woo waa daari sëñ Abdul Xaadir Mbay euh, soxna Faama jóg mu ñëw euh, sëñ Moustapha mu mel ne ni mu ko wax am na solo li ma ci gën a marqué mooy faat waxtu julli sëñ Abdul Xaadir doomi sëñ Tuubaa dañ koo laajoon lan mooy lu bon mu ne bu ñu xasee noddu lu dul julli baaxatu bu ñu xasee noddu moo xam toog di jàng xasida moo xam toog di jàng alxuraan julli rek moo baax dara baaxatul. mbooloo mi de day mbooloo moo xamee ne nii xam nga lislaam dañuy wax na naan naxnu banun kiram naatasu bil islaam maanaam dafa bokk ci bëgg-bëgg lislaam tàggal ay xale ci lu baax surtout ay jigéen ndax lépp loo xamee ne nii baax na ci àdduna jigéen ña dugal leen seen loxo wala sax mën na noo wax ne ñoo ëpp doole kon nag mbooloo mi nga xamee ne ñoom waaye góor ñi nga xam ne ñoo di tàggat ay góor ci lu baax loolu noonu am solo la te it ñu nit lu ñu ànd la te lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu duggal suñu loxo la incha allahu rabbi ci mboolem lu ñu mën a jàppale moo am ay wax la moo xam ay jëf moo xam lu mën di doon waaye daal mbooloo mi daal wax dëgg yàlla sant nañ si te it kontaan nañ ci te it bi mu tax wee xëy na yàggul waaye ñu ngi ciy dox ay jéego yu ama ama am solo ci madame Babacar ak ak mboolem ñu di jàppale loolu nag doo am am solo la dëgg yàlla mbooloo moom ñoo ngi wax rek képp koo xamee ne nii incha allahu rabbi buñ fi jógee bëgg nga sa doom bokk boo awee ci ñi nga xamee ne ñoo ko ñoo ñoo liggéey bi noonu rek incha allahu bi dina jàppale te dina yomb incha allahu rabbi Cheikh Abdoul Fatah. macha allah jërëjëf kon sëñ Babacar. hasbi rabbi نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي آها ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ضاع في قلبي غير الله نور محمد محمد لا إله آه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بلي الله يا ديكوبا حسب الله يا الله يا الله يا الله بلي الله يا ديكوبا yàlla moo di borom ndendam amul du morom moom rek may ki ñu moo gante moo gën moo di borom moom rek mooy ki ñu moo gante moo ndaw laa di doomi jullit saa bind doon bindu nit buur bi ma def ma xam ngeen ne bur laa buuba ndaw laa di doom yi jur gi saa bind doon bindu ni man daara laa bëgg a dem bay daara laa bëgg a daara laa bëgg a dem len ma xañ lii di baa laa bëgg a dem baay daara laa bëgg a dem yaay daara laa bëgg dem bu leen ma ba man daara laa bëgg a dem baay daara laa bëgg a dem yaay daara laa bëgg dem bu leen ma ba yónneen bi mooy ki xeetam wi xeet wi fi gën téereem daa war ñu ngoy ko bu Brengen wie mooi die vliegen, teren wie het wie vliegen, teren wie teren vliegen, daar waren nu mijn kabuba. Jullie de daar waren gaan, dinem de daar waren gaan, buuram gaan met jonenen, tax mu doon nit man daaw la baax a bay daaw la baax a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 yonent bi mooy kii fii gën bu baax man daara la bëgg a bu leen ma xaj mi di baax l'islam de moo ñu gënal Qur'an de moo ñu gënal kon daara moo ñu mënal jox leen daara yu baax l'islam de moo gënal kon daara moo mënal jox leen daara yu baax ñu gënal Quran de moo ñu kon daara ñu mënal jox daara yu baax l'islam صلاة الله سلام لا لا لا صلاة الله سلام لا لا لا صلاة الله سلام لا لا لا صلاة الله سلام لا لا لا صلاة الله سلام لا لا لا صلاة الله صلاة الله سلام صلاة الله سلام الله Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer بنا به ينفرد